asalaamaaleykum waa àdduna ñi ngi nuyu ñëpp ñu taxaw di ñu seetaan di suivre Mbedd Vision waa Sénégal ak waa diaspora ñu ñëwoon tey seen beneen émission waar bi waar bi nag boo ko déggee émission dóor waar la te jàmbaar da naan sa waar ba te ñu ñëwoon fii ni quartier Mbaye Guèye tali seet si benn góor yàlla bu am jom macha allah ñu koy wax Habib Ka Habib ñoom ngi lay ziar. delloo ziar frère. baa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant bu baax a baax. dan lay bàyyi ngeen nuyoog askan wi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah euh, yéen ñiy seetaan émission bi maa ngi leen di nuyu di leen bégee bu baax di leen ñaanal yàlla mu defal leen jàmm bu baax a baax a baax ñu ñaan daal tàmbali si bisimilah eggali ci alhamdulilah rabbi alamin waaw ñu ngi leen di bégee daal di xaar question yi rek ñu waxtaan bu baax a baax incha allah. abi léegi dina bëggoon ñu expliquer ñu lan ak lan ak lan ngay def si ci ci place bi nga détaillé ñu ko waaw frère waaw place bi moom maa ngi fiy def euh, transfert d' argent quoi laa fi njëkkee woon parce que dama euh, dama fekk place bi sama benn grand bu ñu naan sec moo ko yoroon xam nga dem ba place bi daanu nag ay weer place bi ibiwul comprendre nga ci laa ñëw jël ci moom place bi doon fi def ay orange ne ay wari jamonoy wari quoi. Mhm. loolu daal laa fi tàmbalee woon. Mhm. waaw ba tey mu mel nii mu mel nii ngeen ko fekkee rek waa ma changé ko man na ñaari at. ci laa ko changé léegi di jaay ay téléphone xam nga. waaw di yokk ci yeneen i bagage daal. parce que ku yokkul da ngay wàññi quoi. waaw daal la demee. kan nga commencé ci ci métier bi nii. waaw métier bi maa ngi ko commencé ay 2013 2014. waa jaar ci ay nit quoi doon fa liggéey sama rakku yaay maa ngi koy nuyu bu ñaan xaar ñan ci moom laa njëkk a jaar ci métier bi ndeysaan jamonoy sibeer la woon sax boobu ay war yi yëpp xewul mm-hmm. waaw moo ma jàngal métier bi waaw ma nekkoon ci moom ba ni ma fa jógee nekkaat ci beneen copain talimaam jaara di fa liggéey aussi di ko jàppale ci place bi te li ci gën a yéeme mooy ñi ma daan liggéeyal ñëpp daan ñu ma fay par weer ah. amour de travail rek laa ci mm-hmm. amoon waaw bo bu bax juré mhm. bu go tok bu go taxawalu dama fa daan nek di job suba ak ngon daan ñuma fay 100 francs sa mhm. weer amul weer bu daan jot ñu ne ma jappal ci 2000 euh, yi mhm. non da la daan jobé di job ba yalla def tay ma am sama yëfu bop mais musuma am salaire dama daan liggéey rek te yalla tax ba yalla def jàmm quoi kon non lay demee comme li olof ndia di wax sa su rek ku mm-hmm. yag ci teen ah yag yag bag dina la fa fekk mm-hmm. bon léegi dañuy gën a continuer si waxtaan bi rek maam yan réalisation nga defagum si ci ci ci métier bi ak léegi. waaw métier bi moom euh, maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a ginnaaw ba ma bàyyee jàng ba liggéeyal ñooñu ma la wax nii boobu ba léegi ci laa nekk maa ngi ciy sant yàlla bu baax samay parents yi ma jur maa ngi leen ciy satisfaire di ci satisfaire su laa am soxna ci laa am ay lu ne waaw lépp loo gis rek nit di ko am rek ci laa ko am waaw ay terrain ak lu ne rek liggéey bi moo ñu koy may ay kër ak lu ne waaw ak yeneen ak yeneen tey bu ñu bëggoon jënd oto bu buy jaar ne jënd ko te métier bi moo ñu koy moo ñu koy may te mun naa la seedal ni ba ma koy tàmbali yoruma sax cinq cent mille waaw tey dem na ba may ñëw sama yaay bi ma jur lal bi muy tëdd ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp maa ko jënd te ci métier bi laa ko defee waaw booy lim daal sax doo fi na doo fi jeexal. waaw ku lim juum comme ni ñu koy waxee rek. waaw bi nag métti na méttiwul. Mhm. parce que des fois da ngay tase client bu nekk. Mhm. maanaam yan comportement la ñuy ëpp di am comme comme client yi bu ñëwee. waaw client yi moom façon client bu ne ngay recevoir moo tax yow mi nga xam ne yaa moom place bi yaay xam nooy. Euh, nooy nooy gérer ak ñoom rek parce que da ngay gis ku ñëw fee ak seddaayam ak mbaaxam am ku jóge fële ak tàngaayam xam nga am ñoo xam ne spécial di la triande rek moo tax ñu fi ñëw parce que liggéey bi aussi dafa nekk liggéey boo xam ne dafa bëri arnaque waaw nit mën na fi ñëw ne la déposer ma cinq cent mille fekk yorul sax xaalis bi si poosam ndekete keneen a koy woo euh, di ko di ko wax nii pour mu ñëw envoyé xaalis bi te moom sax àndut xelam daal parce que bëri na ñoo xam ne daal ñoo ngi lañ siy nax. mais est ce que mës na la arnaqué waa ji ñëw xam nga nax la nga envoyé ko pare nga doog a xam ni kii arnaqueur la. waaw man moom eh, dama nekk nit koo xam ne eh, dama tarbiyu liggéey bi. Mhm. moo tax nit ku ñëw rek damay xam. waaw nit ku ñëw damay xam yenn saa yi nag eh, comme nit ñëw mu leer na ma ni kii ay bu ma xamee ne ay arnaqueur ñoo koy woo rek. Mhm. bu dugg see rek damay xam ne kii ay tria ñoo koy woo. Mhm. si saa si dama koy dimbali dimbali naa si ñu bari ñoo xam ne mën naa lim fii seen tur ñoo xam ne maa ngi si dimbali ñu bari. Mhm. ñoo xam ne dañ leen naroon arnaqué arnaqué yu metti mais man boo dugg see rek damay xam ban façon nit nga parce que liggéey bi dama ko dama ko tarbiyu mhm. dama ko jàng mooy li ma tàmbalee ak yow mooy damaa jaar ci ñaari nit di leen liggéeyal te daan ñu ma fay dërëm te teewul ni ma fa daan xëy see fii di fi ne suba ngoon noonu laa daan nekkee ñoom seen place yi. Mhm. loolu moo tax liggéey bi moom dama ci am expérience bu baax a baax a baax a baax mosuñu ma arnaqué nag mais yàgg nañoo bëgg ay euh, arnaqué ay nit pour ñu ñëw fii pour ma defal leen ay transaction mais man maa leen di dimbali ba loolu du ci am quoi. mais actuellement nii fi mu toll nii yow dama bëgg nga citer ma différent transfert d' argent bi ngay bi ngay def comme ban ak ban ak ban ngay ngay def actuellement nii. Ah, waaw actuellement moom damay def transfert yëpp xam nga instant yi ay Wave ñoo xew. Mhm. ay Orange Money. ay Ria ay Western Union ay MoneyGram yooyu yëpp dama koy def transfert yëpp am na fi mhm. waaw ci yooyu yëpp dama ciy yëngu wari moom dee na ak jooni jooni ah, yóbbaale na xaalis sénégalais yu bari loolu tamit maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy lancer message ci mhm. état bi mhm. ak ñi nga xam ne ñu dimbali seen jeune réew ah, parce que ñun yor ñu yor ay million def ko ci plateforme wari wala jooni jooni ñu jékki-jékki rek plateforme yooyu tëj ñu ñàkk suñu xaalis nii si zéro ni may wax ak ay jamono fanaani ji di fanaan buntu yi ay une di du matin deux te balaa banque bi di ibbi ay neuf heures si suba. Mhm. xoolal nga yor sa soxna yëpp dem fanaan fenn une heure nga fay dem toog di rang ba 9 heures si suba pour mun a jot sa xaalis. boo demee ba ci biir gise bi ñu ne la doo laal lu dul 1 million wala deux million dañ lay plafonné ne la nangam rek lañ la mën a jox parce que nit ñi fi nekk dañoo bari. Mhm. te boobu yow si compte yaa ngi fa am ay millions yu millions yu millions mais dañ lay tere pour nga jël ko sa xaalis la léegi bañ demee ba wari tëj la fa amoon yëpp nag léegi da ko perte. sénégalais yu bari ñoo ngi fa yor ay millions yu million yoo xam ne instant yi mënuñu ko génnee dañ ko per

initié ba nga ba tax nga ne maam da nga siy boole comme yeneen bagages yi ngay jaayaat quoi. waaw xam nga dañoo dem ba dernier moment. Mhm. nii may wax ak yow transfert d' képp ku ko yaakaar moom kase kase kase kase. Mhm. xanaa nga yor millions yu bari pour nga génn si. Mhm. mais bu fekkee bëgg nga liggéey normal jamono yi dañoo toll ci jamono yi li naan jamono yi njaxas njaxas. waaw njaxas mooy bul def transfert kase. parce que amatul dara. tey wéef bii ngay gis. 5 millions, il y a 6 millions, il y a 13 000. Il y 5 millions, il y a 6 millions, il y a 13 000. Il y 4 millions, il 5 millions, il y a 8 500. Il y a 1 million, comme le client a dit, il y a 1 million, il y a 3 000. Il y a 1 500, il y a 5 000. Il y 2 millions, il y a 6 000. Il y 2 millions, il 3 millions, il y a 7 500 francs. nga fay 4 millions ba 5 millions Wave fay la 8500 nga fay 3 millions ba 4 millions Wave fay la 7800. Mhm. xam nga ngay jël ay millions millions di ko dugal fenn te yow liñ lay fay dara baaxu si loolu tey moom ma initié. Mhm. ma dem di jaay léegi ay ventilo di jaay ay cahier pour élèves yi xam nga. Mhm. di jaay matériel électronique boo bëgg téléphone boo bëgg loo bëgg ci chargeur ci. belende yëpp rek ñu dugal ko léegi si suñu métier. Mhm. parce que yooyu sax moo gën a tane ci transfert d' argent parce que transfert d' argent bi dafa bëri looy juum gis nga Wave yenn saa yi nit day ñëw ne ma retirel ma deux cent mille. Mhm. wala cinq cent mille. Mhm. au lieu ma def retrait damay dugal damay def si compte am dépôt. Oh. xam kooku da doon jël. man nag dama koy dugalaatal cinq cent mille somme bu mag dal na ma du benn du ñaar. ba pare jëlaat cinq cent mille jox ko client bi kon kooku un million sama un million moo ngi ci compte am. ba pare mu dem te kooku xaw ko. man daal damay toog rek vérifier gis ni def naa njuumte boobu waaw Wave rek laa mën a woo ñu jox ma numéro client bi ma woo ko mu ñëw te client boobu bu ko neexee mu bañ ma ko wooyee bu fekkee gis na affaire bi bu ko neexee mu bañ te duma ci mën dara boobaa Wave leen rek la lay proposer demal police nga porte ko plainte mhm. yooyu yëpp day am ci liggéey bi. waaw waaw Wave seen yoon ci nekk lu dul demal nga porte plainte client dafa bëri risque. moom loolu saa yi nit ñëw ne defal ma dépôt Wave nga defal ko dépôt Wave wala nga defal ko retrait Wave Wave woo la téléphone ne la kooku nga retiré xaalis bi moomu ko dafa arnaqué nit 600000 yow bu fekk jox nga waay 600000 boobaa Wave yow lay porte plainte nga fay 600000 ci koo xam ne dafa ñëwoon sa place di retiré nga retiré ko mu dem yow après ñu indi la problème. donc yooyu yëpp day am ci liggéey yenn saa yi client ñëw Orange Money ne la defal ma dépo nga jox ko sa téléphone nekk kooku yàgg seet seetlu ba xam na sa compte nga jox ko sa téléphone ñu de sa compte li fa nekkoon 600000 700000 ñu vidé ko. dal na sama copain yu bëri wala nit ñëw di déposé orange mu ne jël sa téléphone bi mel ni lu ko waral génnee piis bi daw ak jox la téléphone bi génn rek daw ak sa piis ci xam dara. ndekte boobu rocce na sa ba ndaw mais boobu day fekk mu xam sa code orange mu ne parce que bëri yoo xam ne nee naa la. jëf ju bon moo tax ñu ñëw sa place parce que dañuy ñëw pour xam say code sa kër parce que booy tàppe code yi dañ koy gis ci dañuy profité woon jël sa xaalis ak yooyu ñu bari ñoo xam ne samay copains la. dafa bëri ay risque quoi gars yi dañ leen si dóor bu baax a baax a baax ay wéer orange moo bi si baax na si xel bu baax léegi lan lan ngay maanaam wax yi nga xamante ni ba lan nga leen di wax quoi ñoom jeunes yi nga xamante ni dañoo daw wuti comme affaire multi service ubbi ko ñoom lan nga leen di lan nga leen li ma leen di xelal mooy liggéey bi nekk na liggéey boo xam ne jamono eh, bu yàqu la mais ku bëgg a liggéey tamit mun nga ñëw ubbi man dama lay wax sama jaar-jaar mun naa ne ay 2016 ba ma bàyyee ñi may liggéeyal ñëpp 2016 daal jënd ay matériel u cyber pour ubbi cyber fii ci laa fi ñëw teg fi cyber. mais jënd ma machine yi rek liggéey jënd naa machine yi valeur de sept cent mille aw ma wari aw ma xaalis pour liggéey toogaat naa un an yor benn six cent mille ci laa tàmbali liggéey tey ba nii may wax ak yow benn six cent mille laa tàmbalee fii mais pour lii lépp boo gisee ma koy wax na pour jeunes yi dem góorgóorlu bañ bàyyi toog ci mbedd yi parce que nii may wax ak boo demoon ci tali yi ak yenn mbedd yi da ngay fekk si yenn ba ngoon di tux seen i di def yooyu yëpp temps la li gën mooy nañ dem créer seen yëfu bopp xaar nguur buñ xaar dara ci laa ñëw dem jëndi samay machine ñëw teg toogaat naa un naa doomu ñëw bi fi tàmbali fi sama collage ma lay tey dem na ba maa ngi fiy sant yàlla bu baax a baax laa tàkk sama soxna si laay lijjanti sama business moo bëgg a lijjanti si laa koy lijjanti kon nag nañu jéem a góorgóorlu dem uti ji seen i seen i comme place kii doon liggéey yi moo gën tey liggéey bi tamit ku yàlla dimbali rek moo fi nekk mais ñu dem bàyyi toog ci loolu am na solo bu baax a baax a baax bu ko defee xam nga loolu lay jox nga joxe sa mot de la fin rek. waaw la fin euh, di sant yàlla bu baax di leen béggee yéen euh, di leen wax ne kontaan nañ ci yéen bu baax émission bi am na solo euh, yaakamti woon naa nag bokk ci ñi koy ci ñi koy mës a def benn jour. sant nañ leen bu baax a baax di jégalu tamit ci dérangement bi ak sonal geeg yëpp eh, di ñaan seen eh, seen bi yàlla jëmale ko kanam mu gën a avancé gën a dem fi ngeen bëgg ñoo ngi koy suivre nag bu baax a baax a baax a baax vidéo bu jot rek Baba Sall moom ñu koy envoyé ñoo ngi koy seetaan ñoo ngi ciy bégee bu baax ah, di sant nag eh, sunuy waajur muy sama papa bi ma jur di alaaji Paate Ka sama yaay tamit maa ngi koy sant soxna Jee Njaay mm-hmm. moom it nu ñu mel moom la di sant tamit soxna si soxna Nday awaloo di ko béggee waaw di sant bu baax di leen ñaanal yàlla def jàmm yàlla yokk kër gi ngeen gën a avancé dem ba yor euh, ay business daal yu yu gën a yaatu. Mm-hmm, waaw yal na yàlla jàppale bu baax a baax kontaan nañ bu baax. tawfeex ak tay si euh, kon noonu lay demee gars yi xam ñu ñu jeexalee foofu émission bi tey ñëwoon fii euh, si Tali Karo seet si woon. abib abib Ka mom boo ñu xam bu ko gisé lan xam ni mi ngi ci war wi nii ak émission war bi parce que mi ngi waxtaan di ñak à chaque fois bon non lay démé à chaque fois gaay xam ñu lay ni taggu bu baaxa a baaxa baaxa baax a a leen bëggé ya ñu togon di suivre émission bi ah di ci andon nak sé suñu caméraman bu nice bi ni moy bimbal lum lay mu nice ah mom moy borom lum laal mu nice mo nekk ci caméra bi nekk ci monteur réalisateur bon suñu copain Sedina ridial moom moo nekkoon ci son bi ama seen tout temps que Sedina Ridal moo nekkoon ci waxukaay bi ñu leen ñu jox dig dale à la prochaine hein, émission Warwi, wi fii ci TV merci beaucoup.